Hi, ladies and gentlemen, Foral Catch, we back again. Produced by H Entertainment. Guy, namoon nañ leen dawrete leen baal lañu àq baal nañ leen àq waaw gëjoon nañ toog tey toogaan nañ ñoo ngi nii agama man possible wala boogees. jaaree. saa na moo naa la de. meema rawan. eh ma meen si taab. yaa naka waar naka diidi. waaw ci kaw ma. takkale yaa ngi jox gars yi. waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi takkale. mais juus juus yi ma fi indiwaat de. juus yi nii yee. waaw juus yi ci la bokk dama dama naan juus quoi. mais saa nga koy soxla sax parce que xam nga rek journée bi. mais juus yi kan moo koy indi. yi neex na juus yi nii. xanaa na fi. naka net bi. waa net bi daa su sër. mais mais moom nag day yeneen gars yi foog ñu def commande. en tout cas neex trop sax trop sax trop yeah. mais tey moom dañuy dañuy def tour d'actu. waaw am na lu jot a xew depuis boobu. ba léegi mais mënuñoo wax ci lépp quoi. mais dañuy sélectionner quelques trucs ñu wax vite fait am nañu ci sànni comme d'hab sama expert yi joxe seen avis. ñu ñu cher ko gars yi quoi. ah jotaay bi jotaay waaw. bon dañuy wax ci euh, déjà. am na ñaari album yu génn waaw ñaar du doy album benn la benn bi mi EP la mhm. bon ay ay yoo xam ne ni ràññee nañ leen ci game bi kenn kii H la H boo xam ne ni bon kan la kii waaw lu mu lu mu njëkkee loolu lu mujjee kan kii la eh, waaw moo ngi nii the best ana keer keer keer yaa a génte Yeah. Nineteen ninety five. <laughs> waaw ak moom benn deep dose. deep mhm. dose. yeah sama sama rap bu technique bi crossover. bon dañuy waxaatam ci ñaari légende quoi. Mhm. parce que crazy ñoo xam ne ñu ngi fii since the beginning since day one. Ah, moom buñ ñun buñ noo wax suñuy pionnier ci hip hop gaaseel dañ leen fiy tudd quoi. si ñoom la dégg tii nañ ko trop. ak jaaxas la. matadi. ak famous. Mhm. ak euh, loo xam ne ni moo yëngal jamono. Hmm. moo jóg. waaw hmm. ah, dama yàgg moom la ñuy tëjee quoi. Hmm. waaw am ci kii. gars wax na ku ne wax na et cetera loolu. mais ñun tamit dañuy indi suñu wàll ci ci ci ci ci ci affaire yi quoi. mun ñoo bañ a wax. waaw ah, ah, first boo ñu commencé par âge de baisse. ma âge man man damay pour pour diir pour commencer sax. âge moom il m'a lu ñu naan agréablement surpris parce que lu tax parce que bon je l'avoue hein ces de ces derniers produits yu bëri déglu ma leen comme il le faut quoi comme kuy ponse kii parce que man am am nu ñu koy sax am strictly hip hop quoi waaw ah, soo xawee génn ci ba ban naat on rap mais xam nga hip hop mun nga nekk rap nga indi beneen genre parce que hip noonu la noonu noonu noonu lañ ko kiiwee. noonu lañ définir noonu lañ orienté style musique bi ba biit yi ñu am. parce que dafa boole ay genre yu bëri pour mun a am loolu quoi. mais boo génnee foofu carrément. pas génn mais boo boo génnee. boo laxoo rek laxu genre waaw boo defee leneen lu xaw a wuteeg loolu noonu. Uh-huh. man damay stay quoi damay nekk fii quoi parce que damay naan loolu ngay defi fële maa ngi koy fii fii maa ngi ko moo tax jotuma kii mais bon bu ma déglu bii nii. 1995. I like it. man dama bëgg a get get out get get out quoi. waaw nice. aas bii laa bëgg quoi. mais ñeneen beneen aas lañ bëgg mais man aas bi laa bëgg aas bi laay déglu quoi aas <laughs> bu ma nigga bi. bi bon yeah boobu laa bëgg quoi bi kike bi yee. Hmm. léegi pour commencer bàyyi yow kii la suñu. non njëkkee di seet ah njëkkee di seet nga dem bàyyi nga dem bàyyi nga dem xam nga fii nii yaa ngi ko fi yaa ngi ko représenté naan <laughs> dinaa ni faa. non man léegi xam naa ni lii mooy mille. noona genti ma ko lire no genti noona genti kinke en 1995 quoi en mooy en latin quoi yéema ah, loolu loolu bii moom musuma ko mën liir lire quoi ah, am nga lii nii par exemple ni ñu ko bindee nii latin bu bindee mhm. lu nekkee à gauche day moins par rapport bu nekkee à droite d'accord noonu lay kiwee bon même suñ comprendre ma mais. d'accord donc xam nga xam nga lii mille la lii mille la. lii cent la. waaw cent mooy kii. Mm-hmm. mu nekk euh, mille neuf cent. Mm-hmm. noonu lay demee quoi. mille neuf cent quatre-vingt-quinze. waaw noonu lay def noonu lay def ba kii bi quoi. amul problème. Mm-hmm. yeah man léegi euh, ninety ninety five waaw disons que je n'ai pas été surpris. xam nga ah personnellement quoi. je ne suis pas surpris parce que xam nga surprise bett la quoi loo xam ne dafa bett. au sens positif na lay doon surprise au sens négatif day nekk mbetteel quoi. donc bett bett la quoi. mais bettuma dans le sens où I know this man quoi I know this guy. xam nga since the beginning quoi since ma nigga. xam nga since freestyle yi doon def freestyle million flow xam nga di wane kike xam nga di wane aussi voix di wane. I got the voice quoi I got million flow. donc loolu daf koy yàgg a wane quoi since the beginning léegi nag. puis bon moment boo xamante ni. c'est vrai dégguñ ko mu rap strictly quoi donc mi ngi woon ci voice bi mi ngi woon ci vibe bi mi ngi doon di way du sa ay vibe bi sax way la quoi. il a un grand talent de chanteur quoi. Ah xam nga def Dibéer. je pense que bi ñuy def récapitulatif deux mille vingt et un. j'ai parlé de Dibéer comme euh, un de mes albums favoris quoi même si c'est pas pour cent rap. et de HDBS comme euh, mon meilleur artiste de l'année deux mille vingt et un quoi parce que les raisons sont là je les avais énumérées mais je ne suis pas été content quoi parce que man dama bokkoon si ñu ko doon wax ni ne ko âge am nga quarantaine session yi bi mu koy def one two ba ba dama ko ne lii mooy jab bi quoi ah jox ñu bitu rab rabal après nga tostingaale quoi en même temps nga wayaale donc loolu la indilaat si naani naani five aussi def benn back to the roots xam nga ci type biti indil ñu bitu ba mu you know si si sound yëpp ah. xam nga am na benn beat boo xam ne sax du du du du nineteen ninety five but seventeen lay doon quoi. xam nga mooy eh, love ma love live live life is love life is love quoi. boobu ah, jabu jabu jamono the break the great the the the the get down. yaa jamono njëkk the break the get down ah, jamono mooy dëggantaan suusu xam nga music hip hop bi quoi. donc delloo nañu part bi quoi break part. yeah man disons que c'est un. benn machine la à retourner dans le temps quoi dans Nandina Nifaas j'ai vraiment été voilà content je ne suis pas déçu du tout xam nga nice lu naa de bess yi mu si def même si j'ai quelques xam nga réticence yu ma am si yeneen affaire mais moom loolu dinañ si ñëw après quoi. yeah Tam. Mm-hmm. Tam as rappeur as euh, chanteur. Mm-hmm. donte sa mun nga rap you can rap and then sing over beat. Mm-hmm. loolu xam nañ ko quoi. waa 50 Cent album am. que kii mu tuddati guest yu sot daa cuwaari xuu yi bëri da ko da parce que mm-hmm. am na talaam yàlla may na ko loolu noonu mm-hmm. mais ka boo boo wóyee the whole track loolu dañ koy yóbbu ci arène bi quoi mm-hmm. loolu moo xaw sax doon différence ak ar parce que même type beat la différence mooy bi hook bi ak verse bi yëpp dañ koy sing quoi léegi nag as rappeur ak as wéykat ba yow soo doon def choix ban nga ciy jël euh, par rapport à ses qualités qualité yu mu jot a wone parce que as woykat mhm. chanteur wane na ay qualité as rappeur wane na ay qualité boo ci dina dina dina a jaaxal nag mais as woykat moo ma gën a hmm. euh, as woykat neexu ma loolu il faut mu leer quoi en fait bi mu commencé as je l'ai découvert bi mu commencé woy parce suivre ma ko woon bi mu commencé woy après ma dem nag di xoolaat ay ay song yu yàgg yu mu doon projet wéy bi accroché wu ma nag ma ne mais bi li ma doon def moo ma gënal lii quoi xam nga man j'arrivais pas à à à à j'arrivais pas il n'arrivait pas ci ay ci ay soom quoi yi mu doon woy par la suite bon vu que man dama nekk nit boo xam ne damay fréquenter ay woykat souvent surtout ay répétition affaire yooyu noonu benn bés ma seetaan benn live am su ma juumul sa ay moo ko partagé xaw ma sama manager Malick Sy. shout mu partagé partagé. a <laughs> ma ne waaw. mais saa yu ndeke live nii live quoi parce que man artiste dama lay respecté su ma la gisee ci live loolu moom nga koy assuré. Mm-hmm. depuis boobu ma ne waaw mais saa yu ndeke mun wax naa la saa ma ne man man saa yu ndeke dégluwuma kon mais saa yu il bien. après ma dem dégluwaat ay yeneen affaire am ma ne yeah yeah kii nice. mais bu ñëwaatee di rab non loolu moom loolu moom dara neexuma ci saa c'est pas parce que non kii de non mais mais dama dama dama bugguma dégg en fait ñun mënuñu dem ci artiste ne ko bul def lii bul def lii mais tamit am naa droit ne ko su ma sañoon continuer li ngay def quoi bul rab non non son projet là moom sincèrement ça ne hmm. m'approche pas maanaam ci standardu ñun par exemple hmm. standard yi ñuy waxtaanee fii ci rap genre bëri na ay rappeurs yoo xam ne dama leen di fustige fii nii damay wax ci donc H ah nekkul ci standard boobu sax. ok man sama gis-gis. ok genre j'ai beaucoup j'ai senti beaucoup de problèmes. te problème nag bu warul am bizarrement parce que H ah, c'est un c'est boo xam ne il est trop live. Hmm. mais quand booy déglu muy rap. tu as l'impression que kii dafay sonn. affaire bu bizarre. ah bi waaw xiixat ah, yi alors que man il fait beaucoup de live quoi loolu. loolu daf ma jaaxal bon loolu tamit c'est un problème à gérer le flow xaw ma ndax gëj rap la xaw ma bon mais H boo ko déggee da nga xam ne c'est un artiste boo xam ne daf ci nekk parce que chaque jour da ngay gis mu ngi presté mu ngi def ay affaire mais c'est un album qui m'a pas benn affaire moom moo ma neex ci album bi te di loolu moom sincère mais les prod les prod. ñi gérer musique comme moom ils ont fait ils ont fait de de très bonnes prod. mais dama jàpp ni rab bi moom wóo papa moom. mais est du du du lu muy wax. xam nga lu muy wax euh, le fait moom sa waxal na ko boppam. Mm. yéen a ma dàq rab. man dàq leen def lu naaj. c'est dàq leen def lu naaj. man a ngeen ah, na loolu la quoi xëy na xëy na. non mais mais xam nga tamit nga xam sa bopp. waaw waaw nga xam voilà yow lan nga. na moom xam na mu rab. Mm. mais mënul def rab ba dab. gars yoo xam ne ni ñoo ngi ci registre boobu quoi. donc léegi dina def rap. parce que dafa a rap. voilà mais is not a is not a whack rapper maanaam. non non non non non non xam nga xam nga. is a good one. j'ai bi tu préfères mu way j'ai bien yi ma déglu avance bi muy woy daf ma daf ma accroché woon ko voilà j'ai bien dit way bi après la la accroché way bi après la ma accroché mais rap bi mais ñëw nii rap bi ñëw nii mu mujjee man dama jàpp ni c'est low par rapport ak ni mu doon rappé bu njëkk ba bii man j'ai pas trouvé un a côté flow j'ai pas trouvé énorme j'ai pas trouvé dope côté lyrics je l'ai pas trouvé donc j'ai trouvé quelqu'un qui quelqu'un qui s'essaie de. mais c'est que c'est euh, xam nga moom il a été light. ci mm. lyrics il a été light. waaw xam nga. Mm-hmm. dafa dafa bind nice cool man yi. Ah, ah, ah. jëmul comme gars yi naan gymnastique. comme moom ni ñu koy waxee noonu. comme moom intellectuel boobu noonu maanaam jëm a creuser. Mm. il a été light léegi ci light boobu noonu. Mm-hmm. il a dit des choses yoo xam ne nii. that's cool xam nga. man man man. dëgg la dëgg la li ma si bëgg a wax parce même si bon. c'est clair que nii man ak sëtam donc bokkuñu point de vue quoi bien sûr si 1995 et c'est ça le charme disons de de for the culture. en fait 1995 euh, c'est c'est un vécu en fait. Mm-hmm. c'est un truc boo xamante ni bon peut-être que gars si on va vraiment un profondeur quoi c'est sa life quoi maanaam 1995 la juddu moom tu vois am yu mu dund parce que mi ngi juddoo ghetto ginnaaw raay. bi mu amee ay tey quatre cinq ans yooyu noonu mu tuxu Guédiawaye c'est-à-dire que il n'a jamais quitté ce ce ghetto là mm-hmm. te musique aussi quoi qu'il en ba mu koy tàmmali waa Gaalem d'accord noonu ok xam nga euh, pour quelqu'un kilo le xam nañ ni Gaalem voilà quoi ñi si ëpp ñu ngi kaaw effet demee noonu donc dañuy bëgg disons mu bàyyi yii muy def quoi mu ñëw si ñun yi ñuy def donc il toujours di ça même si le message n'était pas très bien perçu ay dans tukki du tekki genre yooyu la ay maire rek moo si jàppoon ak Youssou xam nga ba muy ba may tàmbali ainsi de suite léegi na da koy indiwaat quoi ba ci représenting gu géddoo bi quoi ay naani naani faar ay gibab xam nga juddoo ci ci bi màggee ci xóot bi xam nga laal foog almadee kàbbon c'est strictement représenting ba xam nga du foog loolu mais bon xam nga da leen di wan ne mën nga juddoo fii màggee fi. tekkee fi looy def nii yow exemple yi. xam nga je fais <laughs> je suis en train de dire que. je suis en train de dire que les lyrics xam nga dafa bëgg a wax ni par rapport ak. Euh, je suis en train d' expliquer les lyrics. la réalité. en fait c'est ça quoi maanaam. je suis en train de dire que les lyrics lu nii heure bi. non non man. non non juste parenthèse la xam nga par exemple. am am am benn daan. waaw am benn daan. Hafiz is a legend. Hafiz is a legend. Hafiz is dead man. non non non non non. kooku kooku ba moment donc donc non non respect la légende mais ba ce que des trucs quoi man. Euh, je suis parvenu à à à à percevoir le message en fait c'est loolu laa bëgg a wax mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. yoo xam ne double entendement bi da nga gis non non non c'est pas c'est trop le truc quoi. en fait dans Dibé les lyrics de Dibé sont beaucoup plus profonds. te lyrics nekk si naan naan five ah, mm. loolu loolu loolu je l'ai dit quoi mais naan naan five moo gën a live moo gën a accessible parce que disons que ni li mu dund li mu fekkee loolu la bëggoon de transmettre de la plus facile des manières quoi vécu quoi voilà je l'ai dit tantôt man j'ai aimé ce projet là quoi te su ma maanaam man dama yàkkamti woon ah de projet la ba mu ba mu ba mu ñàkk a nice quoi je le disais à à à à Malick Sy ma ne ko ah yàkkamti naa mu def benn flop comme ça ma mën a toog foofu ne ko Ash tu as floppé parce que dem naa ba benn mois ñu ne ma yow fan sa Ash nga quoi. <laughs> comme ni ñu may waxee yow fan sa Dip nga nga fan sa fan sa but man I like quoi good things tu vois. bu nice rek xam nga. nice no damay mel ni kuy propagande. ok <laughs> ok but man sincèrement j' étais vraiment accroché quoi. je suis d' accord avec surtout mm-hmm. le fait qu'il ne soit pas ok xam nga mais. waaw xam nga loolu la quoi ku nekk ak point de vue am. Mm-hmm. Ah, dañ koy nangul nit ñi ko rek waaw chapeau au musicien. Oh, ak ak tamit ak tamit ak euh, tamit. Ah, ak Malick Sy. waaw mooy def job bu rëy. Mm-hmm. équipe équipe bi yanti lu tax nga loolu dafa génn naa ne dafa génn quelques jours après. ba aj kàddu waaw Facebook jël ko pour trois euh, trente jours. non <laughs> mais coolu mais xoolal gars yi gën a mag ci ci ci àdduna bi les les les les gens les kii les nutritifs nit ñu boo xam ne ni ñoo gën a marqué ci àdduna ci bëri dañoo dañ leen kii quoi. dañ leen di jaay eh, dañoo nangu seen kàddu quoi aw problème. <laughs> jël virtuel bi. <laughs> gis nga léegi dañuy dañuy dañuy dañuy jëm ci beneen beneen beneen. Mm-hmm. Euh, ci benn pas ci benn registre mais ci ci euh, ci koo xam ne ni peut-être moo gën a moo gën a def rap que kii ñu mujjee wax ni quoi mooy Deep Dose. Mm-hmm. waaw génne benn benn EP tuddee ko. le waaw benn projet de neuf titre su ma ah, juumul waaw waaw ak cover ak cover bu bu cover bu sadik bi. crossover yeah cover j'aime bien la couleur et tout et cetera xam rek bon. pare ak. élite la ak waaw Dip moom xamoon nañ ni moom depuis quelque temps il fait des belles choses que ce soit moom ay ay mbir mu boppam. Mhm. wala ay feat yoo xam ne dañ ko invité ñoo def ci affaire bi n'est-ce pas. mais lenn mooy problème bi mooy Dip boobu léegi muy génn ay EP génnoon album léegi quoi. Mhm. Oh. te dafa benn affaire ci pedigree su mooy juumul donc gisuma naaw la ci seen i co seen i chronique. ci mhm. game bi comique. waaw ah, mais bi muy wax loolu yaa gën a bu si gis sa bopp. non gisuma sama bopp dañuy dañuy waxtaan rek. mais man. <laughs> EP twice nga génne ko génnewaat EP. bi di naal ba mu faal. loolu e du naawlees quoi 3 e a sorti 3 e la quoi. y' a introduction self loading. c' est passé un peu inaperçu. waaw introduction waaw introduction. ak bii nii quoi mais boobu noonu boobu noonu est ce que du clip la woon non Rudis Massadou non non projet son premier projet. pedigree mi ngi koy wax mooy. Ready to Mashadow moom mooy. boobu son la si biir quoi Ready to Mashadow. waaw parce que daf ko remix. waaw ma daf ko defoon clip ak remix. remix si biir projet bi en fait donc introduce myself c'était aussi neuf titres comme nii ah. xam nga moo jëloon aussi euh, best EP euh, awards yooyu noonu quoi. waaw mooy awards waaye waaw Ready to Master the World moo ko jëloon waaw Ready to moo ko jël mi ngi wax si pédigré bi. Ah. xam nga pédigré il dit beaucoup de choses quoi Deep Dose. il dit beaucoup quoi est-ce que bi <laughs> bon xam nga tamit. c'est xam nga soo amee un voilà soo soo amee vécu dans la mm-hmm. rue. Mm-hmm. bon pas dans la rue au. Oh. mais Malo Malo Malo hmm. am dagg ci fenn quoi. waaw mooy fan noonu euh, li nga doon wax ci about knowledge about ñaari EP. sans album. yee yee yee waaw loolu il faut il faut quand même. waaw loolu foofu noonu. xam nga par exemple tey booy booy booy woote woo dara. booy wootoo benn benn affaire quoi genre. ba ba nga taxé nit ñi dañ ñoo ñool xamuñu la comme ni waaj daane waa waa waa di waxee. dama ngay jàng et cetera je mhm. je may damay jàpp ni en amont yow am nga. am ci loo too quoi. Mhm. amoo ma nu mu maa concevoir tey yow ci très da nga da nga gars yi naa la ci seen i chronique. Mhm. alors que yow nga génne iib bi gënaat iib. te xam nañ ni iib bi doo ko génne de. waaw boo waree boo génne iib bi danga war a génne album quoi. te boo génne album yi logique mooy son yi na ci dugaan. mais dañuy gis iib bi sax day am bonus track. léegi loolu ñàkk xam la wala def yëfu ma. il faut que tu nous fasses un cours ci loolu. non loolu dañ ciy ñëw extend loolu dañ ciy ñëwaat dañ ciy ñëw ci yeneen ci yeneen kii surtout. non léegi maanaam li normal mooy. am xam nga par exemple tey xam nga tey par exemple. Euh, business bi mooy industrie bi. Mhm. ci musique soo génnee un single. c'est pour la promotion de ton album. Hmm. yow mun nga génne single sans pour autant sa sa album pare. léegi hmm. sa album bu pare single bu nga génne benn ñaar ba ñett. Hmm. da leen di dugalaat ci album. dañuy bokk ci album. bu fekkee danga nga génne EP comme ni ñu ko xamee selon la logique de la musique. comme ci hip hop et cetera. boo génnee EP benn à peu près album bu bu génnee les même sons dañ fay retrouver. dañ ko war a dañ ko war a fekkaat hmm. parce que lan yow da nga génnee da nga génnee un truc boo xam ne ni euh, juste pré album la quoi. Hmm. par rapport lii di ñëw pareegu ma mais maa ngi ñëw naa leen jox une sélection hmm. single. ngeen téye ko ngeen ko après su ma paree damay jëlaat yow dugalaat ko ci album bi album maa ngi nii man. la table si si day duggaat fekk si benn dix wala voilà voilà voilà ah, voilà voilà voilà. voilà loolu la quoi donc du man yooyu noonu dem ci mu sax ay problème mais Sénégal bon dañoo toll ci jamono yoo xam ne ni. Mhm. les gens sont breaking the rules quoi. comme fii Sénégal moom dañuy dem kenn xamatul ni IP mais sama wax mosuma wax loolu intéressant quoi bon offline quoi ne il faut connaître les règles pour pouvoir les briser quoi. saa yi moom ma des fois ñu règle yi faaw nga xam ko maanaam mënoo briser règle yoo xam ne maanaam xamoo ko quoi hmm. bon maanaam boo ko xamee si nga koy gën a mën a briser mu nekk lu gën a nga teg ko fu leer nga mën ko teg si lu leer quoi xam naa ne lii la hmm. mais j'ai fait ça waaw mun na nekk tamit mun nañ am njort bu rafet waaw mun na bien sûr. bien sûr xam nga par rapport ak loolu bien sûr xam nga xam nga par exemple. xamul ba pare ngay def loolu loolu loolu waaw doo la xam nga ñun xam nga ñun par exemple on sur la place publique. Mm-hmm, mm-hmm. loo fa indi ñun selon lu mu fa indi ci loolu la ñu mën a wax quoi. Mm-hmm, parce voilà léegi soo ñu waxee leneen ok ñu jël ko mais selon lu ñu kii noonu loolu ñu mën a euh, wax ci noonu rek la ñu mën a euh, wax wax ci affaire bi quoi voilà. mais yow yow léegi man maa laaj léegi noo gisee crossover di EP. non crossover moom moom bu fekkee affaire da nice moom da nekk fi di laam laam bi da nice wala nice loolu ay yow la dafa nice. Ah. yeah man tunnel vision. first time moom ma koy ma koy get. Eh, dama déglu intro bi son bi daw jeex fekk bon ma nekkoon lu jox quoi prend teg kii hmm. bi jeex ma repeat ko mais. pour ba léegi ne mënu maa wax ni son bi nan laa ko expliqué sax. fii la commencé fii la yem. c'est ça quoi genre xam nga tey boo nekkee xale ni ñu jox la tàngal bu nga gën a bëgg kay màcc bu jeexee yow da ngay naan tàngal est-ce jeex na wala jeexul quoi. <laughs> xaw ma na xaw ma na comprendre nga quoi. <laughs> mais la ma def donc du coup j'avais du mal. du progresser bu am na yeneen soofi son yu neex yoo xam ne ni euh, ñoo ngi si suuf quoi j'en fais de même mais juste pour wax la ni déjà loolu intro boobu noonu. voilà intro bi noonu. da yóbbu ci biir quoi. te c' est ça c' est c' est bien calculé man j'aime bëgg euh, artiste. da lay dugal si nga war a. di di di capter nit ñi quoi. yow bu ne fa di kii gars di jéem di xool est ce que lii baax su ma poussé est ce que dina neex est ce que lii non non non gars bu ñu ñëwee tak déglu rek voilà dañ na i. kon saa yi nañ xuus quoi. li si topp loolu moom je le salue moom loolu moom il a réussi ça. nice quoi man moom dama enchaîné déglu quoi dama déglu enchaîné. lecture aléatoire quoi. tunnel vision jàll fii jeex rek pédigré ñëw. sama noppi sama noppi nar a saxaar quoi. <laughs> literally man j'ai j'ai écrit j'ai dit que Dip c'est la définition même de maanaam bu ñu nee nit il rappe bien. c'est un bon rappeur quoi Dip Doz c'est la définition. xam nga li ñuy woowee le bon rappeur quoi xam nga flow bi mi ngi fa. his vibing aussi. loolu yàgg na ko def. mais da ngay dañuy man moom personnellement dama sentir beneen beneen souffle quoi beneen souffle benn benn genre maturité par rapport ak projet bii nii quoi moo gën a posé yeneen yi jot a jàpp yëpp xam nga. xëy na aussi direction artistique bi ki mu ko sekkaloon aussi mayu ko dara mooy Wanda Beats. doon ñu wax si Wanda mais Wanda pareegul sax pour bàyyee ñu si jàmm quoi. <laughs> on va parler de xam naa ne fii ay ati ati ati parce que moo. produit respect la la joxee beat bu nice faal. Wanda moo produce beat yëpp. moo ko def xam nga gérer mix yi aussi quoi bàyyi maa ngi def master yi mais genre à à à do like quoi. kon nag bu ñu amoon xoolal fee mais duñ ko fa def. non dafa war a nekk parce que mi ngi def ay affaires yoo xamante ni for real maanaam du gaaw a fay quoi. Mhm. parce que des projet majeurs siiw ou pas siiw yoo xamante ni saa yu suñ ñëwee rek. day jox àq liggéeyam quoi en tant que beatmaker en tant que sax producer de manière de manière très très mais j'ai bien aimé le projet de de, de Deep Dose. Dose. côté rapping xam nga côté rapping euh, aussi côté vibing quoi dafa dafa aaram en fait nga donc cross over bi de manière générale quoi c'est des sons. nga rob afele nga rob ah, yooyu yëpp ngeen xam nga. man man ah, man titre boobu sax titre boobu bu mu koy njëkk a bu mhm. euh, mu koy njëkk a liir man sama xel dafa dem ci naas quoi. Ah. après bu ma liiraate xaw ma yow yaa doon laaj laa gis Facebook. waaw la laaj ko kii waa ne séeréer mu ne séeréer. ba léegi xaw ma lu muy tekki de. après séeréer yi lan mooy affaire nga roog. xaw ma lan ñu ngi gëm yàlla. bu neexee bu gëm yàlla am naa. loolu daal séeréer tam si. oh <laughs> xoolal mais man first time may liir affaire ak eh, su la ngorog xam nga sama xel ci lan la dem mooy naas lu ma waxoon gis ko aara aara xuus yaara man sama xel ci loolu la demoon quoi mm-hmm. mooy muy naas lu ma gis ne aara ak xuus yaara ak fela sama xel ci loolu la demoon man i a day kan kii balaa maa get som après par la suite laa kiiwaat waaw bu ma gis affaire bi jeexal bu sax bu weex <laughs> yow doo séeréer <laughs> jeexal bu sax bu weex bi <laughs> mais tam mm. cross over pédigré par exemple moom waxal na ko bon. xam nga xam nga pédigré day nu mu traité genre <laughs> la quoi. Mm. attestation boo xam ne waxal crossover bi naaj comme ça ñu xuloo. wala boog ñu mais man personnellement damaa gis ni dip dip dose mën na lu ëpp lii quoi. ba génn album man sama xalaat la quoi man dama gis ni Dip Doz il peut man yor got a reason album peut nous man xam naa loolu man gëm naa ni Dip Doz mën na mën na mën na leneen ak leneen ak leneen yoo xam ne wane ko ah, man fenn fenn laa bëgga a taxawee Dip Doz benn instant kan lay rabal tamit man loolu damay damay bëgg a chaque fois tamit ñu ciy bàyyi xel quoi man nag je suis pas contre man tax may rabal de rap ak lépp li nga mën ci def quoi mais des fois dafay dafay dafay dafay neex tuuti xam nga tamit y a un public qui ki là qui aime trop Dip Doz. ah benn ci man. waaw yaa man man Dip Doz sama sama sama la mais je je me suis pas retrouvé trop ci lii quoi dama ko déglu ma ne ah comme li ma waxoon ci benn artiste fii rek. Mhm. maanaam artiste bi def na neex na wala neexul duñ ci nekk quoi sincèrement on sait que c'est du bon Dip Doz mënul def loo xam ne tey. c'est mhm. en dessous d'une certaine barre. loolu mhm. loolu munul nekk quoi. mais peut-être man tamit damay aj sama standard ba mu ëpp pour di ko xaar foofu quoi. Mm-hmm. peut-être loolu noonu moo may moo may xaaw a téye ba xam ne su ñëwee rek su ma ko dégloo dama naan non. man uh, xaar naa yéegagul xaar naa man xam naa ni Deep Dose il peut. mais doo xaw a man man jéeg man man par exemple man dama dama pare ma ne ah man Deep Dose li ma déglu woon ci moom projet bu bële moom ma gën a neex quoi. Mm-hmm. moom ma gënal. moo ma gënal lii quoi. man ma sax ah jublu saa yi jublu rab ay kat rab ay kat huit noppi may la ay kii teg teg dugal xam nga. très technique très technique sa gars là. waaw musique bi day nooy. non il est bien il est bien boo ko yóbboon moom Saipha Beauty hip hop house moom day day day représente Sénégal. waaw oh, mais Saipha Beauty house tamit gars yi dañ lay tegal ay plus de vingt quatre bars ngay rap quoi ngay rap xam nga loolu tamit. mais mais mais Dip Doss nii lay def. Dip Doss waaw loo ko jox mu jël ah. ah mais mais mais par rapport may la nga nooy la nga déglu. par rapport au au au. siir la quoi siir siir mooy nga manier ko nii xam nga modeler ko nii moom loolu la ko ci ra leen yooyu <laughs> des fois damay man. Mhm. dama déglu su biti yi yi am na ay yoo xam ne daf may rey quoi. waaw waaw ah, mais de la tunnel vision bi rek. Ah, sample dégg naa ay masa coono sample ah, yooyu yëpp dégg naa ko ci biir waaw xam après nag man man des fois su ma déggee benn sample fu muy toll man. contenu lyrical wala contenu kii dama koy xaar foofu parce que sample yi des fois c'est trop top. peut-être man loolu moo may peut-être loolu moo may loolu mooy kase sama sama sama kii quoi mais bi ma ko déggee sincèrement ma ko déglu dégluwaat ngoor bi sax. Mhm. am na group bi ma nekk ak ay gars. ma mais projet Dip Doss bi lan la quoi yéen déglu yéen ko gars yi ne ma nice man de déglu naa ni ma ko waxee laa ma man de déglu naa mhm. mais nii nii nii maa ngi doxaat mais. amul dara lu des. sama bopp waaw amul dara lu ma daaju gum quoi par rapport ak man Dip Doz bi ma. tam koor gi da ngaa jàpp. c'est incompréhensible. malo tam koor non c'était avant koor bi. non mais naan la ndox naan la jus. loolu loolu loolu c'était c'était ah, avant koor bi. non non non non non weeru koor jàpp salaam man dama dama jàpp ni mën na mën na mën nañu may. il faut il faut faire mieux quoi. Ah, loolu laa gëm quoi donte nag je dis pas que lii neexul. non non non xam xamuñu Sénégal on a un problème. dañuy mm. dañuy def euh, différence entre. critique bu objectif ak bu subjectif quoi surtout les les critiques la là par rapport ñun ñu toog fii ñun ñëpp ay bëggee Deep Dose et cetera donc bu ñu ci waxee benn affaire du question de c'est juste pour lui xam nga na laa koy lui mettre les bâtons dans non xam loolu mënuñu ko sax jéemuñu ko sax samedi passé ñoo yenn studio waaye yee yee fi luñ fi fi kii luñ naan for the culture dañuy gis ni ñun bu ñu indee suñu avis ci benn mbir xëy na c'est juste pour loolu noonu gën a jëm kanam gën a naas gën a tooju quoi euh, das deal quoi loolu la quoi. vraiment vraiment léegi dañuy ci ci ci ci ci ci ci ñaari pionnier ñaari grand <laughs> parce que am pur bi man man DJ Alla wax dëgg Yàlla chapeau quoi parce que. xam nga dafay baax des fois ñi jëliwaat grand yi. Hmm. wala paa yi indiwaat leen xam nga indiwaat leen ci ci seen juste pour gars yi xam ne ni tey bu neexee. démb métti woon. métti lu ko mën waxee woon ci. grand yi grand yi def qualité man bu bu bu foofoo waxoon quoi. ndiwaat grand yi def qualité. mais bien sûr. mais ah. mais grand yi. comme comme dëgg yi comme King la qualité. waaw ah, mais mais foofu la mais keneen ki keneen ki moom deful qualité. kooku la noonu. Big D. kan Big D. mais big def na. def na ci aw kii mais big il a fait du big deal. moom la njëkk njëkk a clip non non bosu bosu kii moo jiitu. xumaan xumaan waaw nga ne xumaan ni all new school je sais pas. Um, c' est un projet que j'adore quoi en pur hip hop. surtout philosophie bi. si maanaam bringing back. the good yeah. the hip hop. The, the essence of yeah, rap. pas ay bu dëgër ak non the good. the, ah, essence one. Ah, léegi nga nga tàmbalee ko si des pionniers quoi. old schooling dëggantaan old schooling dafa am ñu mën ba léegi ñoo xam ne mënatuñ. mais mais xam nga fuñ toll nii. léegi waxatuñu ndax mën nañ wala mënuñu. ku mel ni tolluñu mel ni kayit yi mel ni kayit yi man dama leen waat man ni ma ko gisee. <laughs> waaw mën ngeen wax waaw man man amul benn problème. mais ku mel ni kayit yi ah xumaan ñaari mujj yi nii Maxi Crazy ak. Uh, King King Dengue. c'était c' est vraiment maanaam ñoom si seen standard sax ñoom. Mhm. dañ ko jéggi sax quoi am feneen fu ñu ko jéggaat. yëpp yëpp yëpp parce que ça que j'ai vu quoi. bon kayit yi am dafa xaw a wàcc som. killa il il sait mieux faire par rapport ak sànq. ah moom loolu moom je dis quoi. Ah. c'est ça uh-huh, uh-huh. Euh, ah killa du old school ah. killa aussi du old school mais. waaw mu ngi ci bi te killa. il est dans yoo xam daf ko xaw a waaj tuuti mais c'est ça reste ça reste du kilo quoi. mais ku mel ni Keyti il est resté dans ses standards. Mm-hmm. yokku si wàññiwu si. Keyti the same thing. Maxi mm-hmm. Crédit dafa dafa yéegal somme quoi. man man j'ai bien aimé. Euh, ak King Deggy. léegi ñëw rapping quoi. yeah kii. yeah mu rap mu nice. you know ba pare la gars yi li li spirituel. quoi xaw ma. léegi nag gis nga booy booy delloo si waat the good hip hop. Uh-huh. the good one. Uh-huh. da ngay def ak Zozu waa good. waaw loolaa gëm. yeah même c' est des pionniers c' est des grands on a du respect énorme pour uh-huh. eux. mais bu mais maanaam moom ci boppam dans la sélection. bu mburu sax bu sélectionné kenn mu def loo xamante ni jàpp na ni baar bi day waaj mu ne ko saa bii baar bi day waaj du ma ko jël. loolu mooy dëgg bu nga sax mooy dëgg. you know bi mooy beneen bi may suggéré na mi ngi si xelam I don't mais good hip hop bi mu bëgg indiwaat daf ko basé surtout sur le message. ak la musique. léegi nag ku ne mën naa def loolu. bu mu bañ jëlee ay boy yoo xamante ni jàpp na ni xëy na sax defuñ loolu mu def loo leen ko quoi. mais ça dépend ci concept bi tamit ah. waaw est-ce que est-ce que est-ce que déglu nañ ko mu expliquer est-ce que le concept pas de prendre ñi nga xam ne genre je fais un projet boo xam ne damay jël ñi fi nekkoon quoi. genre il a genre peut-être loolu loolu la. ñu fi ñu fi ñu fi daan teewal quoi. alors nekkoon nekkul dafay nekkoon kii la dafay nekk. genre projet bi lay laal xam nga boo déggee xam nga quand on connaît DJ Awa xam nga boo nee DJ Awa aussi quoi moo wax la. il y a un autre qui doit participer sur ce projet bii la Soufi. waaw doit participer bii la Soufi xam nga doon na nekkoon. waaw mais là. mais xam nga DJ Awa. mais faaw mu continuer tamit ci booy. aussi nga xam ne jàpp na ne sa amaana defuñ loolu mais mu def loolu leen. poste xam nga quand quand tu dis DJ Awa. comme lu ñuy wax un projet des fois ça ressemble à à Kiko Kiko kii quoi. soo nee DJ Ala rek c' est DJ se c' est Yukunku. c' est vrai old ah, waaw waaw da ngay xam kooku lan mooy perception am du hip hop. am pur hip hop. genre il a une perception boo xam ne et loolu man contre ma ko mm-hmm. ku nekk booy def sa projet ci hip hop dafay am yow perception bi nga am ci hip hop moom ngay teg. après nag on sait que tu peux plaira à tout le monde tu peux pas faire un projet pour tout le monde tamit mu ne ah man de projet bi dama koy teg pour kickeur yi ñi nga xam ne dañuy teg bit ak basse peut-être moom noonu la ko jàppee quoi. parce que boo xoolee ñi ko ñi ñi ci nekk gum soit c'est des gars yoo xam ne ñoo doon rap ci genre style boobu wala c'est des gars yoo xam ne ñu ngi continuer rap mais toujours. même bu ñuy def leneen sax mais seen fu ñu leen di identifier c'est sur du comme lu gars yi di wax rap pur quoi maanaam teg bi ba loolu. ci loolu la mais mais King Dëggi newul ci registre boobu de. voilà mais King Dëggi King dama ne. par exemple non attends dama ne. soit. non il faut pas être plus loyaliste que. non dama ne. dama ne projet bi. ñaari façon nit nga ci gis ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak ñi nga xam ne même bu fekkee ne ñu ngi ci ba léegi mais ñu ngi def kii boobu King Dëggi bi muy rap on sait ban genre la doon def bi muy rap quoi description bi King Dëggi xaar pardon King Dëggi même bu nekkatul ci loolu mais nekkul ci lee tamit waaw waaw nekkul ci comme ci lu ñu jàppee ni loolu du rap quoi comme waaw mais man xam nga loolu laay wax quoi sëna man d'accord naa yow mais dama ne li mu jàppee ni mooy rap mm. mooy pur hip hop mm-hmm. ñi nga xam ne defuñ ko sax na ñëw mu defloo leen ko est-ce que yaa ngi wax mm. maanaam tey jii affaire bu simple quoi nañ jël ki nga xam ne man moom laa gën a yab mm. Samba Peuzzi par exemple mm-hmm. bon moom a yab même si mm-hmm. je considère qu'il mm-hmm. loolu moom choix am la il l'assume il le fait il le fait bien mais ku mel ni kooku da nga ñëw nga defloo ko rap tu lui fais faire le pur hip hop quoi xam nga quand on est dans loolu day gën a muy mu day en le code yow yaa koy décrire maanaam c'est DJ A la qui définit nga ne mu ne man lii mooy sama concept Taba Buzz boo ñëwee doo ma defal rap mbalax tu vas pas faire du mbalax tu vas faire du pur hip mais xam nga quelqu'un qui est dans gën a gën bi xam nga ni en réalité pur sax du question de beat quoi. Mhm. question de lyrics la quoi. Mhm. message bi ak beat bi ñaareel. surtout parce que parce que waaw day xam nga bu àndee ci lay gën. def quoi bu àndee ci lay gën quoi mais pur hip boo xool sa l'essence kii bi ci c'est par rapport aux lyrics. Hmm. xëy na dafa jàpp ni ñii ni ñoom ci ci ci luñ daan wax ci luñ daan wax. Hmm. moo doon loo xam ne loolu lañ doon xaar si ñoom. Hmm. te moo doon lu positif. message waa waaw message bi surtout côté boobu quoi. xam nga kon nañ fexe ba ba bring them back. xam nga indi leen gars yi won gars yi ne. hip hop bi lii waaw lii la quoi genre peut-être concept xëy na moom su boppam sax yàlla bu defee xëy na mun nañ mun nañ bokk jotaay mu gën ñu leeral ah, xam nga mooy mooy ah. gën a kii daal xam nga peut-être am dans les codes xam nga quand on dans les codes peut-être moom c'est un gars qui est dans les codes te quelqu'un qui est dans les codes nag ko bañal yenn affaire yi. si bien dire ki ngay wax ni hip hop nanguwuma ci hip hop. am pur waaw pur hip hop lay def. waaw bu ko waxee moom munoo dara. donc loolu mun nañ ko nangu donte suggestion yi. mun nañ ko def loo. waaw loolu lay wax quoi donte suggestion yi. man suggestion la nekkuma si biir mais maa ngi ne suggestion yi peut-être par exemple. mu nar a Samba seera quoi. mais da ngay nit yoo xam ne ils sont dans les codes ils te disent man jàppee ma diw ku ne xam nga mënoo ko bañal loolu tamit ah, loolu chaque jour chaque jour ñun suñ jotaay ñu gis ko benn gars noo xam da wax mu ne la saa yéen man kii bokkul ci sama univers man kii du ah, rappeur naa ah, du rappeur <laughs> loolu dañ koy nangu quoi léegi xuur xuur mbege xuur mbege maxi crazy xuur mbege maxi crazy le retour waaw en fait sans possible bu ñuy wax benn affaire. moom loolu dafa neex quoi di wax ci story hip hop. métaphore waaw genre yooyu noonu. booy moom moom mu nongo di. da koy allégorie quoi genre yii il est fort dans ça possible wax sànq rek y yoo xam ne ils sont restés man c'est du maxi man bi ma ko def dama naan ah, lii de maxi crazy la quoi. mu ngi maanaam ma nee woon génn yaa waaw génn bu ñu ma nee woon génn yaa ans tamit nice parce que c'est du maxi crazy. ni muy bindee. Maxi qui nous régalait avec ses next level. waaw <laughs> xam nga image yi waaw image ñëw. la punchline def ay eh, next de eh, punchline def ay next level def eh. et hip hop gaal tamit mu kii ko ci. Mhm. en fait image image bi dafa rafet quoi. donc se est man loolu aw ma lu. il est dans la logique même de ce empire hip hop là quoi. bien si si c' est du c' est du maxi crazy quoi man loolu aw ma lu ma ci. non sama gars yi nga ko war a stream di ko stream di ko stream di ko stream. waaw waaw waaw ak waa dëgg vidéo day gën a. waaw waaw waaw aala xool fu na la jox ci gis bi nga. <laughs> teg vidéo yi waaw teg vidéo yi moom mu jox fu gis bi. mu defal ko vidéo comme voilà voilà wala vice versa. moom <laughs> nekk fi quoi. gis nga gis nga. jaaxas la temps bi moom moo ngi dem parce que war nañu wax bon damay tëbb kenn rek après ñu tëb dem ci ci kii fa waaw loolu moom dëgg la jaaxas underweight. <laughs> underrated ah, waaw waaw Hmm. genre genre genre dañoo gis ni peut-être ñoom dañoo gis ni que ñoom euh, waroon nañ nekk fii quoi mais public bi moo gisul ba nekkuñu fii nii est-ce que du loolu tam. ah <laughs> xëpp ndox mi <laughs> non en euh, question malo bi moo ma daaj quoi. public bi moo gisul quoi est-ce bi rek la ñuy wax en fait. mais bon en tout cas dans le sens xam nga tey par exemple soo waxee sa bopp nga ne tu es sous côté. waaw te c' parce que yow ci mérites d' être. tu penses mériter. voilà àgg fenn fi. voilà tu devais être à ce niveau la au top mais nit ñi dañ la far xaw ma nan laa koy expliquer. maanaam nit ñi ñoo gisul ñoo la gisul wala ñoo. ñoo juste wala ñoo hypocrite wala whatever. ok mais ñoom loolu la ñu wax ah, exactement. moom la moom la moom la ñu wax ah parce que ñuy cité yeneen MC ci biir naan du jaar ana ana Dina ana Mister Ndiol animateur Pago la moo tax animateur ainsi de suite. Ah, non ce sont des choses de la vie quoi. wax wax wax wax ñoom ils sont mais naa la wax man su ma defee benn analyse bu factuelle ci trajectoire u jaaxas la. ils n'ont que ce qu'ils méritent. waaye pour faire simple. Mhm. li ñu mérité nii. Mm-hmm. li ñuy jàppee underrated mm-hmm. jàpp ma ni ils sont underrated ils sont maanaam appréciés à leur juste valeur mm-hmm. loolu laa jàpp damay def simple jaaxas la c'est un crew bi ñu xam man bi ma xam jamonoy Dakar seen day saay fa euh, surtout xëch moom moo fa dama fa daan gën a ñëw quoi xëch de xas la ak moom ak Diablo Mar c'est des yoo xam ne c'est des rappeurs yoo xamante ni on comptait vraiment sur eux et on compte toujours sax sur eux mën nañ rap basically mën nañu rap daan nañ ko def si mbedd mi teewal ko dem nañ flow up 2017 ñoom ak Taïji Sine la première fois de l'histoire du flow up mu am non pas execo deuxième ñu ne Taïji Sine mooy P Jaxase mooy deuxième la première fois de mhm. l'histoire di flow up ñu am deuxième ba jox leen sax nampaay quoi xamatuma somme bi nu mu toll xam nga le cas Dina ak Mister Ndiol dañ ne execo la ñu demaat beneen round ñu ne euh, Dina moo gagné ah. amul deuxième njool amul prix joxuñ ko sax dix mille francs mais jaaxase dañ leen jox prix ça remonté ay cinq cent je sais plus mais mënutuma la wax prix bi euh, nangam la matul million certes mais am nañ luñ leen ndàmpaay quoi mais yéen a jël deux moment boobu nag ñu ànd ak loolu quoi di génne projet seen première mixtape ñu génne ko mu nice mais pendant ce temps qu'est-ce qu'ils ont fait après loolu ils étaient dans un total bu tayee lépp lu xew ñu wax ci ñu dugg si ñu wax si. waaw ah, laalaw nañ fa Karbala. non Karbala moo mujjee sax. moo mujj. Mhm. laalee Karbala boobu. moo mujjee c'est-à-dire que. jaaxase dañuy jékki-jékki lu ne la ñuy rab lu ne la ñuy. way dañuy topp kii bi rek dañuy jékki-jékki commencé nañoo nee nañ dañuy mbalax. Mhm. dañuy rab mbalax non dañuy clash rab mbalax bi. Mhm. non non mbalaxuma damay dama koy clash. ils faut tout et n'importe quoi en même tax lu bëri génnee benn am mu def bës nga jël ko jël bit bit defaat ci. defaat ci te pendant ce temps dafa génnee benn affaire. deux semaines après ñoom ñu génne nga génne te fekk na yow ñu mag taay ji nekkoon si yoon bi moom ak taay boo xam ne génn na gars yi si wax yéen ak taay hmm. donc ñoom ils sont dans un totalement ils ne sont pas underrated ils sont appréciés à leur juste parce que nit boo xamul foo koy hmm. nga bañ koo classé kenn du si man loolu xalaat mais bi quand même yi non xam nga le son c'est toute une idéologie qui est derrière ah, j'ai bien ah, écouté le wax ils disent que ils ñoom ak seeni morom. vous n'êtes pas underrated yéen page yëpp yéen a ngi jàll yi si ëpp. Mm-hmm. sur Insta y a des yoo xamante ni le plus grand talent du monde bi ma jàpp nii à l'instant T parce que man tamit sometimes ma demee xaal. Mm-hmm. Waza l'un des plus grands talents du monde bi mu duggee si page yooyu c'est y a seulement trois jours quatre jours. Mm-hmm. mais jaaxal sa doo leen taxaw ngeen ne man vous êtes underrated pendant que Waza amul Iponga. c'est la du réalité game bi amul dara lu ñu fiy maye. nga fayew tu ne travailles pas li nga am ngay mérité. yëpp non man man man loolu laa loolu laa ah, Malo. am na beneen baar. Mm. bu ma neex. boo xamante ni j'ai un peu waroon nañ ko corriger. xam nga mu ne. ak <laughs> mu ne xaw ma aljana li la ngay tijjil du clé de sol ah, euh, jàpatuma baat bi donc du si du ma si du ma si mën a sori. moo ci suuf xamul quelque chose quoi. buñ la suulee ci suuf. suuf li sa buntu àjjana. du clé de sol super. Mm. dama leen ne woon dama commandé ma leen dindi leen suuf buñ la suulee ci que suul on t'enterre en terre y a terre. Mm-hmm. la pour lu si mel ne nga naan je monte à l'étage rek. léegi. bon la tamit ah. pléonasme la de ah, waaw pléonasme la sol suulee ci suuf li tijji sa buntu aljana du kale de sol. Mm. buntu clé quoi clé de sol note de musique. waaw tu a donc yaa sol. Mm. entendement bi ñëw na mm. suul moom. parce que loolu liñ ciy dégg mooy. musique nee dafa xaram. Mm-hmm. nee nañ dafa xaram parce que mënu ma see catégorie parce que am a aw ma knowledge bi si si si si a quoi. Mhm. ah monsieur xaraamul waay. <laughs> Pape Mor Lo daal en tout cas. Mhm. ñu ngi lay ziar ñëwaatal ngir eh, yàlla. war nañ def normalement un thème sur hip hop spiritualité moom Pape Mor a ñëw. day ñëw maa ngay jëli sax maa ngay jëli tee ci loxo. donc baar boobu noonu ah c'est. baar ah, rek. day taw baar bu naay sax bu ñu la suulee. dindi naa suuf man dindi naa ko sama bopp. Mm. bu ñu la suulee ngay tijji sa buntu àjjana du clé de sol. c'est bien di mais mais aussi ça prête a discussion quoi. Mm-hmm. parce que avant na musique dina am ñoo xam ne moo leen dugal àjjana. Mm-hmm. parce que yàlla moom àjjanaam bi. moom quoi. <laughs> ku ko neex la fay dugal. <laughs> loolu laa amoon pour wax si Diakhasla un groupe que j'aime bien ñoom xam nañ ko. parce que ñun man personnellement boo su ma leen di gis ñuy ñuy def dara quoi di am leen lu ñu am si hip bi damay fier parce que c'est des groupes yoo xamante ni dès le début on les a soutenus quoi. xam nga à travers lu rap Galsen Bugg ñu mhm. à travers beaucoup de choses qu'on a fait et créé dans ce hip hop boo yooyu noonu lépp lu ñu mës a def woo nañ leen si buñ leen si woo sax ñëw nañ mais sachez que yéen a ngi liggéey li ngeen di liggéey moom ngeen di fayoo vous n'êtes pas underrated vous n'êtes pas overrated yéen a ngi à votre niveau te loolu mooy gain bi liggéey leen rek yeah léeg-léeg jamono jur ku ñu overrate hmm. dib kii mu tudd dañ ko wala dafa mérité place. non man man leen laa gëm ah. bon ah wax na wax na wax na wax na ko ba pare wax na ah. lépp li mu war a wax ba pare par rapport à ça mais juste pour yokk nit ki. il faut man loolu dama ko gëm quoi ku xam <laughs> nit ki décision yi nga jël ci sa life ak lépp li nga am. par exemple man heure bi ma toog fii nii li ma def sama life yëpp moo ma indi fii nii heure bi ma toog nii loolu yëpp kon yow foo mënti nekk rek. faut pas toujours accuser les autres gars yi soo leen xamoon diw du kii xam nga li mu wax nii c'est pas du moom rek de kii wax na ko yàggul dara boo leen dëggoon diw du tiir yi diw du di mais que pas tant pour le regret moom sax na ko ci ci ci ci ci waaw pour pour jaaxas la cité nañu. nañ BMD aussi waaw ne waaw ni Sénégal suñu kii yoon xam nga BMD mais du question de parce que comme chaque jour ñun ñu wax ko fi waxaat nañ ko dugg studio def son moo gën a yomb ci musique mhm. c' est tout un ensemble boo xam ne surtout jamono ji c' est tout un ensemble boo xam ne defoo ko après tu tu tu veux accuser le public oui public yi ñoo xamoon hip hop chroniqueurs yi ñoo xamoon. bu ñu xamoon hip hop ils n'ont pas le devoir ah. amuñ sax amuñ devoir on a pas de signature on a on nit ñi signé public bi sax signé wul benn contrat ak kii. artistes yi ku def lu ko neex mu kife la ku fexe ba sa son egg ci ñoom. mais problème mooy il faut nga fexe y a tout un tout tout tas de choses à faire. Mhm. pour son yi àgg. léegi nag après nag faut pas dire que ay gars xamuñu hip hop ça et la musique nee naa leen science exacte la ba bu génnee war a tas. loolu après y' a aucune exactitude. benn paramètre diw da nga ko déglu da laa war a neex par force diw da nga ma war a kiffé non foofu moom nit ki jox ko mais problème mooy ñoom. fexew ñu son yi àgg fu mu war a àgg. donc boo déggee li ma wax rek kon loolu da ngay xam ne man gëwuma loolu. amul loolu euh, rek. waaw ah, man loolu dañ koy wax par abus de man dama jàpp ne kii kii daal sous côté sur côté côté man loolu dama jàpp ni abus la rek fii kenn forcé fi kenn kenn quoi parce que nit ñi ñoo moom seen seen nopp tamit nit ki mënul toog dem concert ku mu filul nit ki mënul dem jënd di di gaaju wala di di di tëb ci ku mu filul quoi. loolu loolu loolu man dama ko gëm quoi donc juste pour répondre loolu rek big daal. Mm-hmm. ah bu ñuy d'accord ni bu ñuy d'accord ni kii mën na rab bi mu ñuy gaañ man bi may gaañ bëri na ay sénégalais yoo xam ne dañ koy romb nii duñ ko faale. donc après après donc mom tamit il a compris que y a y tout un travail à faire. Ah, à chacun son tour quoi. peut-être seetlu naa bon. tour boobu da nga koy forcer. seetlu naa ni mu ngi koy forcer genre mu ngi commencé am loo xam ne ah xam na ni a ah, affaire bi du rap rek du mun bind rek. du mën rap kese mën rap kese du mais sa dem fenn. <laughs> gis nañ ni léegi y' a y' a quelque chose qui gis nañ ni ces réseaux mu ngi dem affaire yooyu te loolu tamit moom moom gis na ci benn njëriñ quoi donc it gagnerait à continuer saa wala à plus. persévérer ci loolu moom ak yeneen artistes yi yëpp quoi. ok waaw man man loolu loolu. xam xam nga transition. lan la victoire bi la wala clash bi lan nga. non non du loolu transition la dañoo ci underrated. Mhm. dal ci overrated quoi. te Big Dad jamono jii nii. man man pour man quoi bu ñu doon def rank mhm. moom mooy nekk number one ci artistes yu yëngal quoi. Mhm. léegi nag la moo tax mu yëngal lool noonu <laughs> lool ci loolu lañuy ñuy dem. Mhm. ci loolu la ñuy kii nit waaw mooy par rapport ak versus battle versus moom ak. Euh, mu opponent bi mu tuddati sax. moo ak moo joo. moo joo waaw kanam boose la kaw la quoi sama mbokk kaw la quoi wax kontaan tey. yee waa gis nga gis nga. <laughs> Oh, dañoo namoon a wax dañoo namoon a wax dañoo namoon wax waa. léegi léegi kii moom nu mu tuddati. Euh, possible gi waaw des na sax. possible am na bu des xel it. Malo yow naa <laughs> lu euh, kii bi nu mu tuddati. rab Bandaleng bi opposition bi xam nga. biif bi suñ ko mënee waxee noonu sax. aussi boo ko jëlee nga documenté non sincèrement Malo waruma sax. ci tënk quoi ay nit ñi déclenché affaire bi parce que daf may wax loo. non xam xam nga tey. ah yéen bismillah yee na tant que ñu ngi lay wax loolu. ñu ngi affaire bi. waaw parce que parce que euh, dañoo dañoo dañoo dañoo bu ñu def euh, bu ñuy dellu ci ginnaaw euh, ci ginnaaw bi génnoon na benn track tourism three su ma number three su ma juumul. waaw am ñu mu ñaas. waaw xam nga yëngal tuuti. Hmm. après moom silence rajo. jékki-jékki rek Modou dafa son xam nga delluwaat loolu quoi. waaw mais loolu est-ce que loolu waroon na tax mu mu am opposition ba gars yi sori quoi. ah ku toog six mois def silence rajo après mm. génne trois am lu mu wax est-ce que jaroon na. waaw pour dire xam nga daa am tamit lu jiitu sax activisme tri bi quoi. li jiitu loolu mooy Terminator bu Mojo Mojo moo génne son Terminator chroniqueurs yow wax nañ donc ils ont tous les chroniqueurs on on am na ñoo xam ne amaan duñ déglu xëy na ñun la ñuy déglu donc dañ leen koy fàttali bu ndaw rek. waaw so euh, Terminator bi mu génnee deux mille vingt. kii ni. deux mille boobu Mojo dafa génnee mu rajaxe jàmm ñu si ëpp. mais dugg Thiès quoi particulièrement wax ak taay ji siin wax ak phonétique wax ak chambre neuf avocat wax ak chambre neuf après génn jour boobu sax turu Big Daary bi mu génnee Terminator huit jours après chambre neuf yabal Sky Sky poulain la quoi biir chambre neuf Sky tontu moo joo. chambre neuf moo ko yebal. moo ko yebal kay <laughs> mu jaani. le bi tudd ne Mojo Mojaani. bokkul woon clip bu waa ji def si genre àll. Mojaani mooy baaxul. baaxul Mojaani waaw mooy pël la baax na Mojaani mooy baaxul. kon yow doo séeréer pulaar nga. Moji baax na Mojaani. baaxul sànq man ngay laaj ndox séeréer. daa may mboq fële garab damaa màgg ci pël yi fa laa juddoo. donc Mojo Moji. Eh. mu ne ko Mojaani baaxul. baaxul fi nga laal baaxul. Hmm. te comme nga dugg nga si kër di laal ñëpp caat bi mooy. nanga waaw yow daal. loolu la ko waxee woon te nice pour Sky mais man man jamono jooju sax je disais que c'était pas le niveau de Mojo Mojo tamit of ko parce que moo il il s'attendait au grand. li il s'attendait à taille. bu amul taille mu am fone. konkalu kër yi kër gi daal amul avocat bu amul avocat. laalul woon sax Big Daddy moom jàpp na ni Big Daddy bokkul quoi. moo nekkoon ci ci tapis dans l'eau. léegi <laughs> Big six mois après Terminator aussi il faut il faut dire ça mu génnee Actualism 3 moom tamit dafa defoon choc ab diir ñun toog nañ fii on a chroniqué ça jaruñu siy dellu. waaw Actualism 3 bi nag mu raja xewaat moo jooju jamono jooju fekk na aussi génne woon na son bu tuddoon Real Soldiers mi doon def promotion wu mu dem ci plateau ñu ne ko da ngay tontu mu ne non du ma ko donc bi safar gi jàllee <laughs> six mois après mu def mise au point fekk na mi ngi doon waajal euh, showam mise au point ñëw nag mu tudd waga bi nag tudd Big Darix waxal moom ne ko taay film bi et cetera et cetera donc historique bu ndaw bi loolu la quoi. looloo indi euh, back to back bi. yee tam tam. Euh, man man man man personnellement man personnellement. Mm-hmm. xam nga. moom pour man waruloo sa di dem ba di àgg ay trois sons quoi. xam nga. waloon àgg trois sons quoi. parce que xam nga xam nga saa bu mu defee son. Euh, mojo bu mu defee son. saa bu mu ko tontee remise au point. Euh, foofu boobu mënoon nañu wax ni affaire yi man na quoi. Mhm. même bu mu defaaree sax saa yi bu mu ñëwaatee man na quoi. Mhm. xam xam nga xam nga xam nga xam nga dóor fayu. Mm-hmm. day fekk rek ngeen bëgg combat bi yàgg. Mm-hmm. nit moom boo ko kawoo. Mm-hmm. yaakaar naa ar arroser du fa dem quoi. hospice direct lay dem urgence quoi. man man pour ma sama sama sama sama waaw voilà man analyse boobu laa amoon quoi moo tax. kii kan moo kawoo moo kawoo saay. mais kañ la ko kawoo first round wala second round. first round bi waaw mun nañu wax foofu sax xawoon na ko kii ak yoonu mais second round bi daf ko daf ko dafa. dafa ah, dafa kii daal non xam c'est très compliqué. non c'est pas compliqué xam nga c'est pas xam nga c'est pas compliqué xam nga ñun ñoo bëggoon tirer à l'al peut-être public moo bëggoon ah, moo namoon lu mel noonu. <laughs> moo bëggoon par exemple mu am benn combat boo xam ne nii day dem ba prolongation. Mm-hmm. xam nga match moom boo ko rayee mu jeex nañ tirer fin mu jeex. Mm-hmm. mais sooy jéem a yokk temps mort pour waajur égaliser ki demee noonu. da nga koy gën a lor rek parce que waa ji day gën a jël rek noonu la fa demee quoi. Hmm. objectivement nag. Hmm. waaw parce que tey euh, jaruloon man pour man personnel man damay wax sama xalaat bopp quoi parce que gi nga tey ci game bi képp koo xam ne dangay ngay da ngay da ngay da ngay wax lu amul wala ngay sos di créer hmm. parce que man dafa wax benn boo xam ne kooku man dama ci gis sama bopp mooy euh, waga show bi demoon naa. 30 personnes 30 personnes amu foon quoi. c' est décevant waaw 30 personnes amu foon quoi. donc soo waxee affaire humaine parce que ñun fu ñu ñëwoon sax foofu moo ëppoon 30 personnes. rawatina fële fële xam ne ni foofu foofu man sax foofu laa dem parce que maa ngi woon toog juste à côté. soo waxee ci son nag ñëpp di la déglu nga naan foofu 30 personnes la fa newoon te yow demoo fa woon te maa ngi fa woon. parce que yow yow yu laay quoi da nga da mooy loolu quoi da nga te nag ci game na man pour man la hip hop. Mhm. soo waxee lu amul nga luul wala nga kii. wala nga snitch. Hmm. yow amatoo crédibilité. jarul sa combat bi di sori. Hmm. yaa ngi comprendre man fa laa kal quoi parce que man. yaa ngi dans les codes quoi. waaw c'est ça quoi xam nga hip hop moom du nangu loolu. Hmm. nitu dëgg bu gaayro nitu dëgg. nitu dëgg boobu moom loolu mooy hip hop. surtout ci clash. waaw muy clash mu lu mu loolu mooy hip hop. bul créer ay affaire quoi ay police fii ay kenn xam yooyu ay soob la quoi yooyu amul. loolu soo ko defee rek. man man pour man quoi jarul sa ñuy continuer. man moo taxoon ma ne jaruloon ñuy àgg ba dem ay deux trois cent. ok mais man dama gisoon xam nga yaa ngi wax lu garaaw yaa ngi ne six mois après mu doog a tontu loolu damay naan chapeau à Modio quoi peut-être qu'il a intelligent pour jaay show mu ne ah ban stratégie laay ut pour jaay sama concert loolu peut-être loolu la doon wër quoi parce que sincèrement ñun ñëpp. réussir hmm? na ko nu ñu waxee ci concert Modio bi wala ñun ñëpp nuñ ko yëgee sincèrement bu amutoon clash yi ñun ñëpp duñ ciy wax hmm. mais des gens en ont parlé nit ñi wax nañ ci Kaolack bi affaire yooyu donc il ah six mois après lan laay peut am na équipe boo xam ne xalaat nañ ne ko waa mais pourquoi doo tontu Big Dad yëkkati clash bi <laughs> xam nga yëkkati clash bi. ah après nag Big Dad fekk ko ci tontu. dem dem donc waaw Big Dad aussi n'avait rien à perdre moom tamit am na public moo jow public moo jow bu bëri bu ko bu ak beneen public hip hop galsen boo xam parce que le clash qu'on le veuille gëjoon nañ dund xeetu classe bu mel nii quoi di ah, ah, ci eh, xam nga waaw ne seen yoon newul si limite si na fu mu àgg foo xam ne les deux les deux artistes ont benn affaire mais tamit clash dañ nekk. les deux artistes forcément dina am ku kuy perte. <laughs> loolu la du ñu nekk fi way way c'est une boy danse hip hop non. dem nañ commencé xam nga après. avant le clash sax kuy dund hip hop tey boo ko nee ah parce que dañuy jógee la côté subjectif ñu ñëw côté lyricalement technique flow ñu ne la ñaari artistes yi bu ñu génnee le côté subjectif le purement loo xam ne nit ñi mën nañ ko kii quoi ne lyrics parce que lyrics c'est des figures de style. du ma c'est pas waaw loolu c'est des images loolu moom loolu moom du ma ci nekk voilà du ma ci nekk sax yaay yëg yëg yëg wala non foofu après c'est ñaani kañ moo dàq bi nag naan ah saa big daat man sincèrement waxuma sax foofu mais c'est le top quoi jamono ci ci lyricalement buñ nee tamit rap rap affaire yooyu noonu noonu <laughs> yemal xam nga ci lyricisme yi buñ nee tamit rap dañu dañu naan wooy big daat il est il mu ngi fa quoi donc avant sax loolu on sait que big daat comme bu ñu nekkoon pour ñi xam bien bu ñoom dem match dañ naan favori bi big daat la ah, loolu moom dañ koy wax pour ñi xam eh. waaw waaw comme li gars yi di wax il a conservé son titre de favori. <laughs> ba mu ñëwee ci clashante bi il a conservé ce titre de favori. dem na ci clashante bi. on va passer génial. seetaan nañ match bu neex. match bu neex match bu match bu xaaw a am niveau mais au final dañuy nangu ne ah sincèrement on a vu un big dad boo xam ne. il a été supérieur il a été supérieur quoi parce que si loolu mooy biu clash clash fu mu am ci àdduna bi dañu taxaw après ñu ne ah ça neex na mais. moo joo man tamit c'est un artiste. bien sûr. c'est un bu ma découvrir ci ci kii bi xamoon naa ko ni mais daaw ma toog nii di ko suivre mais après tax na man tam ma dem dégluwaat yeneen son parce que je je connaitre connaître l'artiste tax na ma dem dégluwaat yeneen affaire am Mojo c'est un c'est un rappeur c'est un rappeur quoi mënoo ko bañal yenn qualité am mënoo ko. il a fait un, bon clash mais au final dañ ko dañ ko dañ ko. jàpp ni Big Dad il a été un peu au-dessus bon. largement au-dessus. largement au-dessus waaw largement au-dessus. waaw man man dama bëgg dama bëgg def benn. bu bu ngeen ma ko maye yéen ak yéen ak producer bi genre. kon loo bëgg a xool wax si wax si am na ay affaires yoo xam ne peut-être nous ça nous a pas échappé quoi parce que quoi qu'il en soit man j'étais inside. sa tam aussi il de inside. waaw yow sax dañu la yóbbante sax. waaw man ma yóbbante ma jotali sax. waaw est eh, possible wax ko waa Thiès ma wax ko waa Thiès. delloo ko waa Kaolack waa Kaolack delloo waa. <laughs> xam nga tamit même si loolu sax gymnastique boobu si intéressant parce que back to back à la base quoi on répond maanaam bu la nit waxee da nga koy tontu te lim la wax nga koy tontu quoi. donc déjà su côté sax non pas forcément non waaw waaw mais. voilà Pouchy am na leneen sa foo ñu leeral ko après. Ah, waaw sama xel ñëw back to back boobu foo ñu leeral ko. xaaral ah, wax ba pare. waaw li may li may wax mooy. Euh, non tey moom dañuy yaatal quoi on a. <laughs> so li may wax mooy euh, moo joo dafa ne impossible. wax ko waa Thiès. waaw. Big Dad si bi si topp quoi remise au point. mu ne ko rap two two one jël info bi jox ko two two one. man maa ngi bi mais moom jéggi na ay possible quoi. puisque rap two to one mooy rab deux cent vingt. deux cent vingt et un ñoo koy distribuer eh, chapeau à eux parce que ñu ngi def aussi job nice quoi loolu moom du ñu dañ ci di ko eh, wax ñoom rap wolof moom rap. Eh, ñoom ak plateforme yi nekk si. si am na yu ma leen war a wax sax ñoom ñëpp mais voilà loolu après dinañ si ñëw. possible wax ko waa Thiès rap two to one wax ko sa tutu. c'est basique quoi xam nga mais c'est c'est pour pour génne un peu les réponses quoi. Mhm. am benn symbolique c'est-à-dire que même stratégiquement quoi euh, quand Mojo mu jël benn bit download def ci mise au point Big di si jël cinq bit bi defal ko remise au point. ñu pare Mojo defal ko son tuddee ko xaru Mojo ba léegi mooy nekk avantage yu tànn bit bu ko neex quoi. aussi il faut le souligner Mojo moo tànn ñaari bit. bi romb dafa nice. donc xaro bi mu def ko bit bi dafa nice ak euh, mélodie yi quoi. Mhm. mais Big Daddy mënoon na jëlaat même bit mais moment boobu da koy bàyyi mu dem tànniwaat beneen. Mhm. di ko fa xaar. donc foofu noonu rek am na looloo changé clash bi en fait quand Big Daddy est parti sur des une beat propre. Mhm. dem jëli benn clash bu siiw. et historiquement dans l'histoire du clash du hip hop. c'est symbolique sax xam nga muy Sénégal muy États-Unis pas trop Sénégal sax. mais États-Unis nga dem jël benn bitu clash bu siiw pour clash. mais mais daf na the game bu muy clash fifty cent four hundred balls and running. dafa jël bitu clash histoire ge hip hop yëpp def benn compil benn son de seize minutes xaw ma quinze minutes. yëpp ay bitu rémiment rémiment bi muy clash Nicki def dafa jël Eza. bu tuddee ko Cheza. xam nga féminiser ko quoi donc loolu moom yàgg na States ñoom am nañ culture boobu. donc bi nga dem jëli bitu Gasson. mu am mu am compréhension yu ngand yu ñu ci war a am déjà. Gaston c'est un MC qui a validé en public Big Direct mais aussi clash boobu noonu Gaston defoon si biir ala ci bi dafa bokk ci référence yi en terme de clash quoi. Ah, donc symbolique bi mënul weesu loolu quoi. mais quand tu es inside nga jël bit boobu donc xam nga ne naturellement quand tu clash un MC bu dëkk Kaolack ci bitu ala acu mais tu dois t'attendre à ce que mu dem jëli laalaake. waaw ah, laalaake ah, bu kër gi. mais ma wax ko gars yi xam ko. le lendemain bi Mojo waree classe sur l'instru Laalaake fekk na Big Daddy X mi ngi programmé lu bitu Laalaakeem te xamul woon ne soit mi ngi Laalaake. il était a attendu là mais looloo tax dernière réponse bi yàggul ça n'a pas tardé bi mu génnee tat Big Daddy X fekk na xam na ne bit bii lay tegu donc am na bit bi. Mhm. ce qu'il a eu à faire mooy déglu ko. déglu mën na ko dégloo bindal ko. c'est un gars très rapide léegi léegi léegi mën na la bindal. voilà ay deux sons quoi donc bindul jafewu ko quoi donc il lui répond ko ko. ne ko nag place bi jeex donc c'est des choses qui sont passées xam nga limite à l'intérieur yoo xamante ni bon c'est c'est notre devoir parce que tamit lii dafa dugg ci histoire rap Galsen beeg back to back bi wala clash bi xam nga noo koy tuddee. dafa dugg ci histoire rap laa comprendre <laughs> to back on doit ce nom là à Dre quoi you know xam nga affaire boobu quoi back to back xam nga yaa ma gën a xam yow la jox ma ma delloo la quoi même si ki mu ko doon wax tamit delloowul xam nga Meek Mill moom amuloon chance delloo quoi parce que dañ ko. non mais Meek Mill mosul génnee sax. non delloo parce que saa daf ko dóor avant muy xalaat mu dóoraat ko ko song muy nu muy réagir rek. <laughs> waaw xalaat ñu dóor la beneen après yow doo mën a wax quoi so. c'était juste esprit boobu bi back to back bi entre Mojé et Big Daddy c'est kenn du leen niyeel seen talent de rappeur waaye li Seydou wax Malomar wax ko Babacar Ndour maa ngi lay shout de passage mu wax ko ci chronique bi moo fi ne lyricalement. techniquement sexuellement. ma indi indi lu tuuti. waaw waaw affaire foofu moom wii na quoi. foofu moom wii na te affaire bi c'est c'est purement hip hop quoi. xam mm. a pas de rancune amul dara. Mm. c'est strictly mu musique mm. te affaire yi ñoŋante mu amee moom dualité bu amee wala opposition bu amee. foofu moom kenn ko xam ne moom foofu mu gagné quoi. donc saa euh, amul problème xam nga. Hmm. dam defaruwaat rek xam nga. Hmm. peut-être da nga am yenn adversaire xam ne yaa leen mun quoi. Hmm. donc bëggoon nañu wax ci leneen ak leneen. parce que xam dañuy wax si ten minutes freestyle bu wasaa bi. waaw non non boobu après après ñu kii ko parce que lool noonu. noonu man bàyyi gars yi cons. non Malo dafa am loo xam ne il faut il faut tamit ñu ñu wax ko quoi ce sont yoo xam ne c'est du hip hop. dafa dafa dafa jaar fii quoi il faut il faut tamit ñu wax ko. mooy xam nga on a eu dig dañoo gëj a def foo de quartier boo xam ne dafay day laal actualité vu qu'on parle actualité on parle pas que de son. ya mhm. y a des choses qui se sont il faut ñu wax ko on a parlé. DJ Bara def na fi événement. boo xam ne ñuul day show bi dafa nice. dafa nice trop ci ñuul day show bi sax la ñu ci ñuul day show bi la ñu clash bi fekk sax clash bi. c'est vrai ah. la clash bi la génn le 12 mars. tous les guddi boobu noonu ci concert bi ñu ngi ko ci doon wax. DJ Bara sincèrement foog ñu foog ñu foog ñu wax il a un concert boo xam ne. Mhm. nit ñi gëjoon nañ dund concert boobu concert bi amul ñëw indi sa son kale. Mhm. da ñëw ñu war si kaw seen ñu balancer ay beat ngeen rap. waaw ci la boole woon El Jazz ak Big Dal ak. ak Aada Gane da ngay ñëw yow da ngay ak ak diw kaay leen. ngeen yéeg ñu amul sama beat amul ni da ngay ñëw ñu balancer ay beat ngeen rap. beneen bi mooy. Euh, def chill record. def chill waaw voilà loolu tamit c'était c'était un événement quoi. naay sonn actualité la actualité la parce que dafa ubbi du sës rek ak jóoba juba dañoo ubbi benn studio parcelle. Mhm. xam nga woote fa saay fa. terrain akapes xam nga terrain akapes gars yi ñëw def fa saay fa bu nice. et puis ku xam sës rek xam ne c'est le ah, hip hop. waaw événement bi dafa hip hop parce que dem nañ fa gars yi def fa ay saay fa xam nga. juice yi ñoo ma gën a neex waaw naan nañ fa ay jus fet nañ affaire non yëpp am noonu la baara tam dañoo concert ba pare public bi ak rappeurs yi ay jox ñu jox affaire yi waa net bi moo ñu jox juice yeeg voilà xam nga ak euh, moo ñu defal ndogu tey net bi la tudd mooy Edge Fall donc net bi aussi day def euh, poulet pané yeeg yooyu léegi dañoo xaw a <laughs> xaw am sponsor bu ndaw you know donc daas euh, for the culture freestyle waza itam dafa dóor mais ten minutes freestyle faut bi moo ñu teg choc. ma nee nañu nañu gaaw ñu parax pare non non on prend a wax wax si ten minutes freestyle yi wasaay man au que man. moom moo laa tey wasa tey tey non wasa tey wasa naa la benn booy définir artiste. booy définir artiste du wër définition artiste neel jàkk wasaare pare ci. Hmm. jarul sa ngay wër définition artiste. tënk quoi. ten minutes freestyle. c'est un nouveau concept. boo xam ne Edge Entertainment fii ñu toog nii xam nga Edge Entertainment ñoo ko initié après faux de culture bii ñu def ci ci contenu la euh, bokk ak ah, beneen mm-hmm. dañoo initié li ñuy woowee ten minutes freestyle ten minutes da ngay ñëw ñu teg jox la ay beat yu la neex nga tànn tu fais dix minutes non stop tegal texte impro wala do what you feel but be free freestyle quoi mm-hmm. donc yëpp ku bëgg a jàll si ten minutes freestyle yooyu noonu waneel seetam na link seetam wane ko képp ku bëgg a jaar si ten bénéficiaire na na ah, na link leen ma rek link leen ma rek moo géré loolu so moo ngi dee naaj waaw ku ñëwoon nag tamit bu ñëwaa ah, amul problème dañ lay jégal rek <laughs> en tout cas Ouza aj na ah, baar bi waaw ku ñëwee rek nañu àjji ko mu jeex that's deal waaye comme ni mu xam nga rek gëjoon nañu wax namoon nañu wax wax nañ ba doyal naan nañ jus naan nañ dox masa masa xam nga mooy loolu xam nga <laughs> ñi ñi dañuy bàyyi rek tàggatoor ba ba beneen yoon rek. xam nga affaire moom du xam nga hip hop dafa neex. waaw dafa neex mun nañ ci wax ba suba quoi. waaw te waxtu xëdd fii la ñuy fekk ki demee noonu. Hmm. fa da kaaca. jaajëf maa jaajëf gars yi di leen saaraa di leen next episode. waaw hmm. fa da kaaca. yeah ñoo fi newoon Mouhamed Maloma seen host ak sama ñaari co-host yi si tam ak ma man possible. banque lyrics waaw képp ko xam ne lyrics da la réer garca ñëwal moom dina la ko jox waaw mooy banque mooy leble lyrics yi di joxe lyrics yi waaw yee mooy di détecté piki di détecté piki waaw seytaane TV jaajëf gars yi peace peace out